yegsi nañ ci dalal Seydina Omar Ba Seydina ñu ngi lay nuyu. di la fay Abdoulaye naka suba si. alhamdulilah lu fës ci xëtu yéen yi. waaye yéen a kaay gi ko ci wàllu njëgu médicament yi la maanaam njëgu mm-hmm. eh, xam moom moo jiite kon mm-hmm. eh, ko yéen a kaay gi fesal leen itamit loo xam yéen a kaay gi Walf Quotidien xëy ne ko fesal Abdoulaye Abdoulaye mhm. mu ngi soxal mbiri Pape Sané démb nag dañ ko mujjee place sous contrôle judiciaire ba nag bàyyi ko mu ñibbi këram mhm. maître Cheikh Niass nag bokkoon ci avocat yi kon daal la lay yëkk ay kàddam kon daal di ñaawlu façon bi nga xam ne ni moom la ñu amee procédure bi noonu la ko yéene kaay gi di wàllu fa côté ji nga xëy fesali Abdoulaye leneen lu fes ci l'info yéene kaay gi di l'info xëyee dellu siwaat amoon ab taxaw seetlu yaatu jëmale ko ci wàllu euh, maanaam euh, bëcc bi maanaam bés bi nga xam ne jagleel démb wàllu wàllu napp mi euh, yéene kaay gi di l'info nag dafa xëy dafa sol ay dàllam utili fële nga xam moo di ca fële nga xam fa lay jaayee jën fële ca Pikine di marché centrale au poisson waaye yéen kaay gi dafa ne bu yeboo rek nañ delloo njukkal bu baax a baax Maroc ak Mauritanie hmm. ndax bur woon ñoom Sénégal duñu lekk jën noonu la ko yéen kaay di l'info xëy fësal Abdoulaye euh, fës na ci 24 moo tax tey ji xale yi di mbëkk gaal yi utali fële ci bitim réew hmm. noonu la ko yéen a euh, nekk ci naka la yore woon réew mi la ko yéen kaay gi xëy fësale yéen gi ne neexul ba neexul waaye bu fekkente ne président Macky Sall ngay war di woote ne force reste à la loi mm-hmm. waaye loi boobule moom jëfewu ko ndax da koy jëfandikoo ngir fàggal adversaire ci wàllu politique mm-hmm. noonu la ko yéen kaay gii di Sud Quotidien xëy fësale Abdoulaye euh, critique lam ñu critique yéen kaay dellu siwaat ci président Macky Sall ne jamono ci Euh, kontaan benn yoon ci Mouhamed Boun Abdallah Dionne Aly Ngouille Ndiaye ki nga nee nag bu la neexee nag dem loolu mënuñu si ñuy dem daanaka dafay dañuy néewal su doole euh, euh, ci xëy fësale le mandat lam ñu le mandat ci loolu la xëy dellu si waat ne Macky Sall daanaka ba fii mënagul war wax ne dañuy samp seen dënd bokk ci élection présidentielle yi di ñëw Abdoulaye tribune. a ne comme sa bopp lancé na open press tour ci week bi la ko fas yéene amal yow. Mhm. Euh, Bougane Gueye dina nga fas utili fële ca Tambacounda kii dugg Kaffrine Kowal ak Fatick lam si jub rek mooy fexe bu fépp foo xam ne président Macky jaaroon na fa daal di dig askan lépp mu daal koy effacé noonu la ko yéen kaay gii de la tribune xëy fësale. l'évidence fa la desandi yéen a kaay gii de l'évidence ne gëm sa bopp ña ngay menacé waa coalition Benno Bokk Yaakaar maanaam lépp daal loo xam président Macky Sall def na ko fa noonu la ko yéen gii di l'évidence xëyee fësale enquête la ñu enquêtal Abdoulaye l'enquête dafa xëyee amal ab l'enquête bu yaatu jëmale ko ci ñi nga xam ay fonctionnaire lañ tey dugg ci wàllu politique yéen kaay gi neexul ba neex waaye tey ji képp koo xam ne ni fonctionnaire yëpp ñëpp ña ngay màbbee ko ci politique mm-hmm. tax yéen kaay di l'enquête xëyee tey ji daal ci amal ab taxaw seetlu yor yor gi lu waaye Bassirou Diomaye Faye bi yéen kaay gi dafa xëy am ab taxaw seetlu ci moom ndax gis na ne fii ci Afrique am na ci ay opposants yoo xam ne nii ca kaso la ñuy jógee dugg dugali euh, palais mm-hmm. ndax moom Bassirou Diomaye fay loolu dana ko dal mu ne la ko yéen kaay gi yor yor xëy fësale euh, réew mi quotidien candidature Bassirou Diomaye Faye yéen kaay gi dafa xëy samp bëgg xam ndax Ousmane Sonko électorat am

Le Soleil euh, gouvernement bu Sénégal jaarale ko ci ciw nit ñi dénk wàllu yoon ci nguur gi taxaw na kon ngir indi ay yeesal jëmale ko ci liggéeyu huissier euh, yooyu li waxtaan ak ñoom pour jéem a xool daal profession yi la naka lañ koy gën a maanaam lañ koy lëkkale noonu la ko yéen gi de soleil xëy fësale euh, le quotidien Seydina seen pele dalal ci laaj ak tontu gi dox ci diggante mag suñu naata ngooy moom Baye Di Agne ma ngay ñaawlu taxawaay nguur gi ndaxte nguur gi daf yore koppar yu takk lànk na du ko fay te ci jamono ju jëlee mu ngay wéy daal di leen poñe ngir ñu fay ko fisc maanaam ay nag doon loo xam ne lu métti la kii di béy di añ ba tax mu fësal ko ci yéen kaay gii di la quotidien donc euh, Dakar Times waaw Dakar Times dafa xëy dellusiwaat ci wàllu finance maanaam suñu budget bi dañu koy doxalee mu ngi ci Dakar Times donc euh, stade xaw tuuti rek suñu gars yi day jëlee defet démb fële ca Togo mhm. ca stade Euh, Togo ak Sénégal ñaari bal ci dara la mujjee waaye nag xaw tuuti rek euh, gone Aliou Cissé ji la fa defet su euh, ñu suñu am wax ci combat gi nga xam ñu koy dox jamono ji mu war a dox ci diggante Siteu ak bala gay numéro 2 mm-hmm. Max Mbergane di maanaam du euh, di pro maanaam di. Euh, mhm. di manager. pour Lansar mhm. ne nag ñu ngi dox parce que nee na fu mu toll nii Balla amul benn bër bu ko war a mën a bën ci làmb ji. Euh, nag du wax la nga xamul lañ laaj ci làmb jojule mais ak lu ciy mënti am nañ jàpp ne combat gi waroon dox ci diggante Siteu ak Lac 2 ak le ak Lac 2 te doxoon seen diggante niki dimanche bi passé. Mhm. CNG teq na leen ah. bu dee Siteu teq nañ ci lu ci tolloog 1 million 240 mille